dal leen ak jàmm ci AGT news chaîne ñëpp teewlu lañ video bi nga xam ni président Macky Sall lañ ciy dégg muy daal di addu nekk conseil des ministres interpellé ki nga xam ni moo di Mariama saara moom miñ dénk formation professionnelle muy àddu ci benn lycée boo xam ne dañ koy tabax fee ca Sandiara ba ñu ko tàmbalee ba tey mat na huit ans lycée boobu mënut a pare maanaam juróom-ñetti at ñuy daal di tabax benn lycée te mënul fexe ba pare te ñëpp gis nañ réalisation bi nga xam ni en un temps record Serigne Mountakha Bassirou Mbacké def na ko ci université Cheikhul Khadim bi nga xam ne biñ ko daal di inauguré yàggul dara waaye nag li doy waar ca mbir mi nekkul tout simplement ñàkk parewul lycée boobu waaye li ci gën a doy waar te gën ñoo yëm Mariama Sarr la moom mi nga xam ni ab ministre la ministre boo xam ni xamul li ko war xamul sax naka la war a mën a def ba résilier ab contrat xamul sax fan la war a jaar ba entrepreneur bu ñu joxoon ab liggéey deful ab wareefam kan ak kan la war a interpeller ngir ñu mën koo résilier ba noppi itam doon koo poursuivre lii di wane encore une fois cuunite gi nga xam ne Ousmane Sonko fàttaliku leen mi ngi ko doon wax ci biir assemblée nationale nañ teewlu kàddu yooyu ba noppi dali dellusiwaat suñu jàngat. ayez le courage de dire la vérité aux Sénégalais seen cuune seen ñàkk bën ak seen ñàkk patriotisme ak dëng gi jiital ci seen gouvernance moo andi problème yi ci Sénégal et les Sénégalais vont souffrir parce que vous êtes incompétents mais les Sénégalais vont souffrir parce que cette frange du nga xam xaalis ngeen di doon jëlee ci ñoom timis ak ñoom ñeneen ak ñeneen di ko jox ay vingt cinq mille ak vingt mille pour ñu woteel leen ñooy doon les premiers victimes de ñu réew tappale du ko defar réew jub ak liggéey moo koy defar je vous remercie. ñoo ko déggandoo bi ko président Ousmane ko di wax yàgg na lool cuunate googu noonu muy wax moom moo feeñ tey jii ci ay kaddu yu Mariama Sarr bi muy tontu le président Macky Sall président Macky Sall itam. kenn demul mu des mu daal di koy humilier ci diggu nit ñi ci biir ministre yi mu nekk loo xam ne peut-être mën nañ koo accepter sax ndax kat ab ministre boo demee bay woote woon yaa yor yenn fonction yi tu as l'obligation d'avoir toutes les informations boo ko xamul nga ut ko la ko xamal boo ko jàngut nga dem jàngi ko loolu mooy dëgg Sénégal nag li ñuy wax tout le temps l'homme qu'il faut à la place qu'il faut loolee chaque jour ñu daal di ciy addu mënuñoo jël ab nit jox ko ab ministère te amul lenn lum ci daal di xam ji président Ousmane Sonko ñi ko wër ñëpp ak ñi koy toogal ci plateau yi kenn lañ ci jël exemple moo di maître Ngagne Demba Touré maître Ngagne Demba Touré nañ seetlu buy yëkkati ay kaddu li muy wax yëpp da koy maîtriser à la lettre mën na sax di la réciter leçon ya nga xam ni jàngoon na ko ca droit waaye itam di la ci jox des exemples yoo xam ni da koy jëlee ci vie jenn bu sénégalais yi maanaam ci li la gën a jege loo xam ne yow da nga koy déglu xam ne lii moom mooy dëgg exactement nga comprendre lim nekk di wax indil le président Macky Sall président Macky Sall ne ko pourquoi on n'a pas résilié le contrat puisque kooku noonu mënul def liggéey bi ñu ko sant. moom Mariama Sarr moo ko waxal boppam mu ne quand on a le point on s'est rendu compte que ni entrepreneur bi mënul yëggali liggéey bi dafa amoon ay difficulté ci wàllum koppar ngir mën koo daal di loolu di wane tey dëggal encore une fois nit ñuy distribuer yenn marché yi parfois day am appel d'offre bu a au lieu ñu jox ko ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo yor seen i ay koppar mën koo liggéey am compétence bi dañuy xool nuñ ko doxalee ñoo xam ne ñoom seen biir ñoo koy lijjanti ba ëllëg ñu am ci ay jafe-jafe sénégalais yi di souffrir ñoom itam ñu teg ñu coono goo xam ne après dañuy dem tëddi seen ay kër comme ni ko Mariama Sarr defee nii kenn xamul kan mooy entrepreneur bi waaye tey bu ñu demee ba jox ab lycée nga koy construire war ngaa mën a am les moyens nécessaires ba état bu la nee tàmbalil nga tàmbali bu la ko waxul sax wala mu jox la financement yow nga tàmbalil sa bopp après say koppar dal di dugg si ñëpp xam nañ projet yi ni muy demee ak entrepreneur yi itam nañuy dal di liggéeyee loolu nag dafa nekk mbir moo xam ne yàgg na ci suñu Sénégal ce n'est pas première fois lii daal di am gis nañ fi rapport bu Cour des comptes li mu génn yëpp ci ay ëyib yoo xam ne jëwrin yi ñu dénk suñu am réew yooyee lañ ci daal di def loolu moom mooy continuer te yàggoon naa am itam yu ci bëri day feeñ benn par benn tey Mariama Sarr moo aye yu wane tey dëggal encore une fois incompétence bi nga xam ne mi ngi ci moom président Macky Sall laaj ko kan ngeen saisir ngir yéen ngeen mën a def li ñuy woowee résilier boobu lépp contrat waaye moom ñëpp gis nañ ko elle a hésité plusieurs fois avant de répondre parce que xamul lan la war a tontu xamul ñan la war a saisir ngir ñu daal di def lu ni mel mu ne nag saisir nañ agence judiciaire de l'État ngir ñu daal di résilier boobu lépp contrat président Macky Sall ci diggu nit ñi itam daal di koy rectifier nekk agence judiciaire de l'État nekkul ñoom ñoom ñooy résilier contrat day fekk nga jaaree ko fi mu war a jaar te foofee du fenn fudul DCMP direction centrale des marché publics foofee nga war a jaaree nga daal di résilier contrat bi nga xam ni moo dox ci diggante ministère bi ak entrepreneur bi bu loolu weesoo nag mën ngaa dem saisir ji agence judiciaire de l'État loolu après la pour ñu mën koo poursuivre moom entrepreneur bi peut-être am ay daan yoo xam ni day tegu ci kawam vraiment suñu am réew ñu ngi ci jafe-jafe ñu ngi ci ay problème moo tax nag révolution mu daal di am alternance am réew loolu nag dara mënu koo dindi lu dul nguur gi fi nekk en place ñu daal di ko fi jëlee indi fi nag ñoo xam ni dañuy am compétence am xam-xam ci li ñuy def maîtriser ko ba noppi itam teg ko ci yoon mu ànd ak éthique ak déontologie lii la ñu soxla ci suñu Sénégal de amul leneen loo xam ni mën nañoo jëmale kanam bu ñu amul des hommes qu'il faut à la place qu'il faut on va rester encore des années et des années à souffrir suñu am réew ñu am benn avancement boo xam ni dañ ko fii daal di gis sénégalais yi sonn nañ damm nañ tàyyi nañ lott nañ ñu ngi ci ay jafe-jafe bés bu yàlla sàkk ñuy jël ay nit ñoo xam ni amuñu benn xam-xam amuñ benn compétence di leen dénk suñu ay dinañ yéex a gis seen ab lycée boobu daal di pare bu dee Mariama Sarr mii dañ ko bàyyi ci ay loxoom jëluñ ko en charge kenn du gis boobu lépp lycée daal di pare nañu bàyyi li nga xam ni moom moo di jox ab nit ab post tout simplement parce que sama militant la wala dafa nekk koo xam ni dafa yàgg nekk ci man loolu amul njëriñ amul sens gis nañ nag ci nguuru président ci Sall que népotisme dafa gën a am doole népotisme boo ko déggee mooy jël sa ay mbokk say xarit say am di jàmm daal leen jox ay poste de responsabilité benn xam-xam amuñu ci benn compétence il faut ñu dem ba xam ne suñu réew mii war ngaa sax mën a dem a dem a dem ba ay jamono nga jël ab poste ministériel bu am solo jox ko ab opposant parce que tout simplement l'opposant a les am na xam-xam bi te moom moo ko mën a doxal pourtant du tee moom mu continuer nekk ci opposition bi waaye du tee mu def ab liggéeyam ca na mu wari nekkul di la servir yow le président de la république mais day servir la nation sénégalaise poste ministériel waaye degré de démocratie et de liberté bi tax ñuy wax foofee lañ ko daal di mën a expliquer li ni mel nag faw mu am ci suñu am réew maanaam changement soppite ci nit ñi nga xam ne ñoom ñooy gérer Ousmane Sonko parle tout le temps de système système système ñu ci bëri xamuñ lan mooy système bi système bi ce n'est rien ay nit ñoo xam ni ñoom lañ jox ay poste ñu koy daal di occuper tey mi ngi mel ni équipe nationale bu Sénégal ñu am benn entraîneur buñ ko jox entraîneur bi am benn système de jeu bu mu teg système de jeu boobu noonu à chaque fois bu demee rek ñu dóor ñu ñu ñibbisi à chaque fois ñu dóor ñu ñu ñibbisi mu dem a dem a dem ba benn Aliou Cissé El Tactico ñëw ñu daal di koy dénk suñu ab équipe ne ko équipe bii ñu la dénk nii dañoo bëgg nga indil ñu système bu bees boo xam ne dina tax ñun ñu mën a am ndam système boobu moo tax tey ñu daal di yëkkati li nga xam ni moo di coupe d'Afrique des nations qualifiée itam ca coupe du monde ba nga xam ne moo doon am ca Qatar 2022 lu ni mel nag kan moo ko def c'est le coach coach boobu nag faw ñu am ko ku bees maanaam beneen président boo xam ne day ñëw administration nekk ko xam bu baax a baax yan xeetu nit la war a jël teg leen ci ay poste nekk itam koo xam ne day ànd ak dëggu jub jubal sell sellal ànd itam ak xarañte ak xadar comme ni ko Aliou Cissé amee bu lay permettre yow nga mën a def sa ab liggéey yow mi ñu dénk boobu le poste sinon mu am ay sanctions yoo xam ni day tegu sa kaw kon système boo ko déggee da ngay xam ni ñi ñu teg ca post ya la ak kay tegaate ca post ya moom moo war a ñëw am benn leadership bu muy incarné am benn melokaan boo xam ni day nekk si moom itam ba képp ku ko gis rek kii su ma deful sama liggéey ca nam nga waree daf may génne le jeu qu'on lui impose de faire loolu moom mooy am réew tey jii poste yi nga xam ne ay poste ministériel la direction yi ak service bu mu mënti doon il faut ñu mettre fa les hommes nga xam ni am nañ compétence bi bañ faa teg ab nit ndax wàllum politique tout simplement dafa nekkoon militant boo xam ni laata may nekk président moom moomee daal na ma jàppale loolu nag nekkul luy jëmale kanam am réew ingénieur yaa ngi fi technocrate yaa ngi fi fi gars yu bëri xam yoo xam ni boo leen dénkee réew mi dénk leen ay poste léegi Sénégal daal di soppeeku lañ fi bëgg ci ab développement ñu daal di koy mën a am loolu nag faw ñu dox ci dem ci ci anam boo xam ne bu mucc ayib lay doon. ñu am benn ragal bu ñuy am ci ni nga xam ne la tànnee ay nit di leen teg ci poste ministériel yi ak poste DG yi nit day am compétence balaa nga koy jox ab poste nañu bàyyi jël mbir yi di ko joxe ci par parparloo ndax ëllëg ay jafe-jafe dong lay jural sénégalais yi ministre ba yëgul ceeb bu cher beex diwlin gu métti gi jafe-jafe yi xale yi di am pour mën a rejoindre les classes ndax lépp mën na di xaar ba mu des njàng ak njàngale ba mu des paju ba mu des lekk ak naan loolu yëpp dafa nekk des secteurs prioritaires ñoo xam ne waruñu ci tergiverser waaye itam waruñu ko jox n'importe qui waruñu ko jox ku incompétent ñu Sénégal nag ci fii la ñu toll nañu daal di jukk jublu ci li nga xam ni moom moo di avancement jublu ci li ñuy mën a jëmale kanam buñ ko deful ëllëg dinañ ko daal di rëccu waaye nag atum 2024 virage la bu doy waar boo xam ni faw ñu daal di ciy jël ñun sénégalais ay décision ferme daal di changer xeetu nit ñi nga xam ni ñoom lañ denk suñu ay ministère waaye rawatina seen ab njiit di le président Macky Sall il ne pa pas être candidat en 2024 nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs au Sénégal waxuma ko constitution bi nga xam ni moo ñu tënk ñun ñëpp moo ko daal di wax te moom président Macky Sall moo ko révisé woon en 2016 ànd ci ak le ministre Ismaïla Madior de la justice garde de sceaux loolu yëpp nag ñu ci dox ci campagne de sensibilisation xamal sénégalais yi ban xeetu gouvernement la ñu am actuellement ak seen ab njiit itam incompétence bi nga xam ni gis nañ ko ci ab gestion am waaye itam dañu jublu ci bindu ci liste électorale yi uti ay carte électeur atum 2024 plan A bi lenn kese la balaa dara di xew mooy am sa carte électeur préparé wu dem voté ji xool ki la neex nga daal di koy tànn ndax saa su nañu wax ko sa am baat mooy sa borné wu au suffrage universel te bu boobaa ñëpp dinañ tànn waaye yow moom doo mës a tànn sa président ëllëg da ngay toog di am lu la métti fekk na yaa ko teg sa bopp mënoon ngaa bokk ci ñi nga xam ne dinañ voté ji fair basculer les résultat du côté de l'opposition pour que le pouvoir en place puisse dégager ñu am président bu yees suñu dëkk mën a bees lépp loo xam ne itam sénégalais yi ñu ngi koy dund ci ay jafe-jafe mu mën a yees l'heure du développement à sonné il faut que nag ñu daal di ciy jublu te bu ñu am benn demi mesure boo xam ni dañ ko ciy daal di am AGT News